mbokki internet de la 5 TV ñu ngi leen di nuyu di leen jajëfal bu baax a baax di leen wax ni rek dal leen ci seen rubrique bi di décortique euh, ñu indil leen tey série bi nga xam ni moo di maîtresse d'un homme marié saison 3 épisode 16 ginnaaw ay nag jàmm ba tax na kile di Jalika ak ex jëkkëram bi di Biram ñoo ngi si jàmm bu baax a baax moom nag Biram mi ngi firndeel euh, ki nga xam ni moo di Jalika que li mu ko waxoon ba tey dugg ci ba tax na tey rek si bi na ki nga xam ni moo fi nekkoon jabaram won dina ko jël en charge jël en charge ay domam mais nak ken bu faté wuñu ñu ak forte caractère am moom nag nee na ko terewu ko ben yoon mu jël en charge domam ak dëkkal len mais quant à charge yi nag dañ koy partager dañu jàll ci deuxième séquence bi loolu jàmm nak jàmm ko gën xarit deug nak ni lay mel bëgg bañ ak làmmiñ nak ñoo dëkk faw ñuy laale yeen say fili nak mo ngi wax xaritam bi di laal la mu wat ci sëyam bobu mom Nak lala Lalla day mel ni parewaatul dugaat ci sëy bi dañuy jàll ci troisième séquence bi men mi ngi bu baax jabaram ak ay jarbaatam Tahirou nag ñibbisi na ginnaaw ba mu amaloon ab tukki mais moom nag day mel ni cinga ndaxte xelam bi dafa ci nga ci ki nga Jalika mu takkoon fi mu takkoon ko fi suuf Jalika nak temps gis nañ ko dafa jël ay distance am si Tahirou loolu nak ub bu baax a baax te amul benn nouvelle am euh, xaritam boobu nag di mami la mujjee woo mais laata muy jot pare sax rakkam jii di meen dégg na ko ba fekk ko fa di ko fàttali nii rek que moom mi di tayiru amul benn jomm mu xalaat bu baax dalaan daal te instant yi dafa ëmb doomam nag mi ngi xamal tayiru que moom ni mu mel yëpp du keneen ku dul dalandaa kon nag war naa am xelu euh, xool ci état bi dalanda toll wax ci kañ mooy dalanda dégg na leen wala déggul leen ndaxte bam meen di wax li nga xam boo meen di wax euh, Tahirou ay dëggam euh, kile di Dalanda mu ngi woon ci balcon bi di leen tiim ñëw ci quatrième séquence bi ba tey ci coowal euh, Bakary Sagna Jalika gis na avocat bi di ko xamal ni kontaanul benn yoon si li jot a am te nee na li mu nekk laala la moo tax mu bàyyi mu sedd moom nag nee na baayam dee na te honoram rek moo ko desee ba tax na kile di Jalika nee na du nangu benn yoon ñu koy daal di dañuy jàll si cinquième séquence bi Dalanda ak Regina nag dem nañu gis ki nga xam ni moo di Racky dalal nañu ko nag ginnaaw ba ko ab garde xamalee ni que euh, suba wala ginnaaw suba moom mii di Racky mën na delluwaat ca kaso bu mu nekkoon ñoom nag seen euh, seen teewu ci fi nga xam ni faral Racky euh, nekkoon li ko li ko li ko waral nekkul leneen lu dul dañoo bëggoon xam mu toogee te wax ko si Moustapha parce que il faut que Moustapha témoigne carrément ne moom rayul pour mu mën a génn ki leen nag di Racky mujjee na abdiquer ba bind lettre nag Moustapha nag addina jot ci lettre boobee dañuy dañuy jàll ci six sixième et dernière séquence mais Diagne nag ak Pagé nag ñoo ngi ci macro bu metti jëmale ko ci kii di doom ci mère Diagne muy Biram ak jarbaat ci Pagé muy am Amsa dañuy laaj nag nan lañuy def ba ñoom ñaar ñi mën a nekk est-ce que lu ñu bëgg dina mën a antu nañu seetaan nag fu bukki di tëggee sabaram mbokk yi nag tey foofu la ñuy yem ak yéen euh, seen rubrique euh, décortique di leen wax ni rek euh, woy leen di abonné te bu leen fàtte appuyé wu ci cloche bi pour ngeen am ay notification à la prochaine ci yeneen rubrique